ñii dañoo rey seen waajur ñii ñu nangu seen alal wala ay intérêt rek moo tax mu ni danga nga koo fekkee waaye ba nga ko fekkee danga ñëw ngir dimbali diine dimbali lislaam moo tax baatu nasru bi am ci solo lool moo tax mu ni fa man yuazim mawlida nabiyuna babil oda sa yuhasabu xada xindal xisaabil mufal nee na képp koo xam ne fekkee nga guddi gii nee na ëllëg kenn du la xisaab xisaab nag lu lu yéeme la ndax kenn ku ci nekk dërëm boo yor suñ borom dana laaj foo ko jëlee noo ko amee foo ko dugal loolu mooy xisaab ak say jëf lu tax nga jëf ko noo ko jëfe ak say wax maanaam li nga am ak li nga xam ak li nga def lenn lu ci nekk suñ borom dana la ko laaj ëllëg te loolu moo yàggal bis penc moo tax moo tax ñu ni miqdaaruhu xamsiina alfa sana maanaam bis penc juróom fukki junni at la te at yooyu te te bis yooyu euh, bis bu nekk mat na nee nañ bis bu nekk mat na téeméeri at fii loolu moo waral xisaab kon xisaab lu lu yéeme la moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon ni sakartuhu ala firaqi al xisaab wa jaalihi kulliyati xayra xisaab maa ngi sant suñu boroom mi nga xam ni moo ma tàggalee xisaab ndax moom amutoon dara moom sëriñ bi ba ba ba suñ suñ Mamor Diarra da ko mos a gane si mu dalal ko ci am mbaar di ko di ko teral ba ñibbi jot mu ne ko li tax ma def lii xam nga lu ma jubloo mu ne ko déedéet mu ne ko damaa bëgg nga xam ni adduna day awma fi dara lu dul mbaar mii néeg yi nga gis boo ci gis alxuraan moom moom laa fa def maanaam néegi alxuraan la nga xam ne néeg bu mu ubbi woon tey ji bëgg ko faa dalal boo demee yaa ngi fa fekk ab lal boo xam ne ay téere lañ fa def di ko pomp yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili xablu wa kunta tabi moo tax sëriñ Tuubaa ni maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ma tag tàggaleeg xisaab ndax xisaab kenn ku ci nekk kem ni nga amee sag xisaab noonu lay yàgge moo tax alfuqaraa u way ñàkk yi ñu yorut dara boo liggéey seeni xisaab day gaaw dañuy ñëw rek duñ fa taxaw ndax yoruñ luñ leen xisaab yi léegi nag ana ki yor 100 milliards benn dërëm bu nekk ñu lay laaj foo ko jëlee ak foo ko dugal loolu nee na ku fekk bis bi bu ëllëgee yomal xiyam nee na doo bokk ci ñi ñuy xisaab nga xam ni suñ borom daan la ñëwal nga jàll wax itam ni fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara muasiman mubashira bi sukkarin aw lahabi fa innahu qad safira bi maa yudimul busara wala yulaqi darara yowma ijtimail umam nee na guddi gi képp koo xam ni yàlla defal na la xéewal ba ngay def ci sa dërëm moo xam da jël suukar wala ndawal moo tax même yow mi nga xam ni yaa ngi fekk si guddi gi maam faati di ko taxawal bu la wóore ni jekku na ko maam faati bu mu la nax wutal lum tuuti tuuti la nga mën nga jox ko ko ni ko lii maa ko barkeele ci guddi gi moo xam suukar la ndax dañ fiy soxla attaaya dañ fiy soxla kafe dañ fiy soxla yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni yu ni mel aw la xam wala ndawal dañ fiy jëfandiku dañ fi añ dañ fi reer kon loola fexeel ba bu la ca kenn man boo xoolee bañ jël ba kenn jël lépp def ko ci alalam rek yow nax na la moo tax bul xeeb dara moo tax sëriñ bi ni képp koo xam ni def nga ci sa dërëm moo xam ndawal la wala suukar nee na texe nga maanaam tuufu nga ci ci mbégte yu kawe ya mbégte mu kawe nag mooy aljana waaw mbégte mu kawe mooy aljana te it wala yolaaxi darara yow maj tamaahil umam nee na bis ba nga xam ni ñëpp danañ daje mooy bis penc nga xam ni kenn ku nekk bu ëllëgee bu suñ borom walee buftu bi da nga naan pullet ci sa bàmmeel fas yéenee waaxu jëm ca pang ma mooy fe yàllay dajale jaam yi nga xam ni wax nañ ni kenn ku nekk leeru yonent bi alayhi salaatu bu fekkee jànkatub xasida nga wala jànkatub alxuraan loolee mooy nokk mooy nekk koddaay mooy nekk yére booy sol looloo tax julli ci yonent bi baax nee na bu nee na bis boobee nga xam ni ci la ñëpp war a jug dem war a daje nga xam ni dana am ñoo xam ne dañuy rafle duñ am luñ sol am ñoo xam ni dañuy fagg lool seen xar kanam fëgg am ñoo xam ni danañ dox lu yàgg doog a mën a àgg fa ñuy taxaw nga xam ni suñ borom fa isan saqati samaau fa kaanat wardatan kaddihan fa kaanat warda wardatan kaddihan suñ borom day day xar asamaan si mu mel ni benn béteex boo xam ne day ñëw rek di sotti ko ci bopp yi bis la boo xam ni suuf si day yawma tubaddalul ardu xayrul ard laneen moo fay ne lu weex tal tal talli ñaay nee na bis boobee nag bu fekkee ni jël nga sa alal def ci bis bii nee na jafe-jafe yooyee suñ borom dana la ci musal kon ab jullit boo xam ni yaa ngi dund ci kaw suuf li ngay def war nga koo xam waroo jug rek mbooloo ma di riir nga topp ca te xamoo li ngay def ndax bari na ñoo xam ni mën nañoo fanaan ci guddi gi ba fajar te duñ fi duñ fi jariñu ndax duñ fi yéene xamuñ li leen fi bàyyi moo tax ab jullit nit buy dox ci dara dafa war a xam yitteem xam la ko tax a jóg loolu baax na ci lool ndax benn benn kilib suukar suñ boroom ni la mën nga cee suñ tubaa ni la mën nga cee mucc ci nax-naxi àddina mën nga cee mucc ci sawara waaye xeeb ga nga koy xeeb ak ñàkk gaa def loolu pexem seytaane la kon nag na ci ñëpp góorgóorlu bu baax attiril lahumma xabrahul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa barik alayhi atiril lahumma xabrahul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa barik alayhi atiril lahumma xabrahul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa tasliim allahumma salli wa sallim wa baarik aley muy muy lu am solo liñ doon def li sëñ Mourtala doon wax léegi am na ñu ko xamut waaye julli ci yonent bi la lan mooy julli ci yonent bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mooy mbindeef mi gënal yàlla ci lépp lu mu sàkk te ci ak leeram la yàlla sàkke jaam yépp moo tax julli ci moom genn jaamu yàlla la nit di def di ko defandoog boroomam muy julli ci yonent bi inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla akub yonentam dañuy julli ci yonent bi kon yéen ñi gëm na di julli ci moom wax nañ ni itam kullu ahmaalil ibaada marduda illa salaatu na nabi mboolem jëfi jaam ñi jëf jum mën a doon boo ko defee suñ borom da koy càmbar boo jullee boo wooree boo nattee asaka boo ajee màkka boo joxee sa alal lépp loo def suñ borom dana ko càmbar xool ba xam kii li muy def dëgg la ci moom ndax day ngistal ndax dafa joxe alalam ngir yàlla wala ndax da koo joxe ngir bëgg ñu jox ko leneen wala ndax da koo joxe ngir bëgg mu yokk yooyu yëpp suñ borom da koy xool ndax julli gi baax na ndax yàllaa tax muy julli wala ndax nit ñee tax muy julli yooyu suñ borom da koy xool ndax yàllaa tax nit ki joxe asaka wala ndax day dem aj màkk ngir ñu di ko soow ak di ko estati di wax ni diw ma nga màkka yooyu dañ koy xool am na malaayika moo xam da koy càmbar xool ko bu fekkee yàlla rek a tax suñ borom nangu ko bu taxul nag nee na dañ koy delloo waaye am na loo xam ne nag kenn du ko càmbar boo ko defee yàlla xoolut ndaxam da ngay ngistal xoolut ndax kii day def muy julli ci yonente bi saa yoo jullee ci yonente bi rek suñu borom da koy nangu da koy nangu directement soo nee sallallahu ala muhammad rek suñ borom da koy nangu loolu imaamul Xasali moo ko wax moo tax julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam euh, bu ngeen gisee xasiida yi suñ tubaay yi am daraja ñu naan la booy jàng xasiida yaa ngi yem nangam wala boo jàng xasida yi aras day jaay kursi yu day jaayu wala nangam yooyu yëpp day tegtale màgg yonent bi waaw lim ni isa katabtu isa katabtu tëj arsul baax yi wa sabbahat malaa'iku tibaax nee na su may bind aras day yëngu day jaayu ndax malaayika yi ci boppam ñoo ñoo téye aras buñ jaayoo faaw aras yëngatu loolu moo waral loolu loolu màggaayu yàlla la moo tax su ma bindee yàlla sunu borom ak malaayika yi dañ naan subhaanallah wax googu ñuy wax subhaanallaa rek mooy yëngal aras moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu mu wax ni fa man taa man hëyya a li man lahu xat xara mu bajjilan fa xaba a xayraati ahlil ximami lu waxoon naa ko wa man ala cheyin xara mawlida sayidal wara tabarrukan fa sa yara nu ma waxoo bil fatxali ba àgg ci ni wa in ala ma in quri mawlida xayril bashari fa shurb bil mutahari yakufu kaydal marxami nee na kiy toog ci bis bi di jàng moo xam salaatu ala nabi ak lu mu mën a doon nee na yaa ngi koy def ngir barkeelu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis sa xéewal yokk bu fekkee ab commerçant nga danga gis say xéewal yokk bu fekkee baykat nga da gis say xéewal yokk la ngay liggéey maanaam suñ borom dana ci def barke ak looy man di def ci métier moo xam ne dafa dagan suñ borom dana la ca defal barke mu wax itam ni ndox mii nga xam ni ñi doon jàng xasida wala ñuy julli ci yonante bi ndox mi nga xam ne yor nañ ko ba ba tifli ci yow nga jël ko naan ci barkeelu ca nee na dalay fegal seytaane maanaam dafa jëlale yow mi jàng waaye kay jàng ndox ma boo ca naanee barkeelu ca suñ borom dana la fegal ci pexam seytaane te saytaane kat ku ci yàlla musal mucc nga ndax mboolem yi tax nit ñi di jote ak di ñàkk a mane ak di yàq àdduna du dara lu dul pexey seytaane nee na ku def loolu mucc nga ca Yuusuf alxardaawi waxoon na ni maanaam bu fekkee ni guddi gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa taw am gàncax gu ca sax am nag wu ca lekk nee na ñu ratt ca meew ma nee na képp ku naan ku naan ca meew ma sa yaram araamal na sawara képp ku naan ca meew moomee sa yaram araamal na sawara yonente bi noo toll noo moo toll noonu kon ihyaau mawlidil bashir yaxmil ayaala wa duyoor fiihi shifaun li sudoor li kulli hadin yonente bi nee na dundal guddi gi bi alayhi wasalaam day aar ak njaboot kon Euh, yow mi nga xam ni yaa ngi dem ci sëriñ naan ko ñaanal ma ci ma mucc wala dañ maa liggéey wala dañ maa njibar wala dañ maa def nangam wala ñaanal ma sama borom sama borom kër gën maa bëgg wala ñaanal ma soxna si ma jot ci yooyu yëpp wala ñaanal ma sama doom sama doom yi sama xale yi yàlla musal leen dañuy feebar nee na li ca gën a gaaw mooy gun dundal guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam képp kuy borom njaboot fas ca loola fasal ci sa njaboot fasal ci kër sa waa kër yaxmil xiyaala waddu yor day kaaraange li ci kër waaw gaafi kër musibay kër balaay kër mooy ay feebar ay tawat yi dal njaboot gi ñàkk dépasse yooyu yëpp nee na dundal guddi gi yonent bi alayhi wasalaam bokk na ci lii li la ci musal maanaam yooyu yëpp bokk na ci li lay musal kon nit bis bu set dana wëndeelu wuti lu ne mu wuti ko waaye daa xamul fa loola am waaye li ngay sàkku boo xamee fa mu ne te ka koy sàkku yéene la ko am nga day gaaw lool waaw loolu nag mooy guddi gi li ci nekk ci toyaaba li ci nekk ci njariñ li ci nekk ci ay xéewal li li ci nekk ci ay ngëneel kenn xamut nu mu toll kon ku ko sàkku rek suñ borom dana la ko defal kon fii fii sifaa un li sudur li kulli haadin yantami nee na day saafara xol yi sifaa u sudur dënn mën naa ragg waaye mën naa feebar mën naa ragg ci euh, ay bari ay bàkkaar maanaam xol bu tilim ba doo nangu dëgg wala doo bëgg doomu aadama wala doo tabe wala nga yor jikko yu ñaaw nee na yooyu yëpp bis bi da koy tawat waaye shifaa un li sudur mboolem raggi tawat yi ak feebar yi nee na bis bii da koy saafara bismillah atiril lahumma qabruhul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa baarik alayhi atiril lahumma xabrahul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa baarik alayhi atiril lahumma xabrahul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa baarik alayhi <laughs> kon euh, niñ ko waxee mbindeef la mu gën ñëpp am na boroom xam-xam bu ko wax ni kayfa tarxaa bi anbiyaawu yaa samaan maa taawalat ha samaa u nee ko yow day asamaan nga soo xam ni fa nga ne kenn mënta yoqamti ko ba agsi fa mooy rasulullahi asamaan nag yaakaar naa kuy jaayug rëy wala gudd ba agsi ci asamaan fa nga war a mën a yem moo tax mu ne ko yaa sama an maata wala tax asamaaw asamaan senn rek la mën a doon wala bu ñu nee asamaani juróom-ñaar asamaani yàlla képp mooy asamaan sa mujj lam yu saa wuuka fii xolaaka nee na kawe gi nga kawe yëkkatiku gi nga yëkkatiku amul benn yonente wala benn nabi yu wala mursal boo xam ni mi ngi jéem mi ngi lay jéem a dir mbagg waxad xaala sanan min ka duunahum wa sanaaw am na sax ay ay kiiraay yu dox seen diggante yonent bi Sëñ Tuubaa waxoon na ko maxamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mu xayyabatan fal taqra an suuratu najm nee na maqaamam yonente bi alayhi suñ borom da koo da koo nëbb boo ci bëggee xam dara na nga jàng suuratu najm wan najmi isaa hawa maa dalla saaxibukum wa maa xawaa wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuuha allamahu sadidul quwa zu mirratin fastawa huwa bil bil ufuqil a'laa summa danaa fatadallaa fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa fa awhaa ilaa abdihi maa awhaa maa kasabal faadu maara afatumaaruhunu ala maa yara wala xad raahu naslatan oxra inda sidratil muntaha indaha jannatul is yaxsa sidrata maa yaxsa maa saaxal basaru wa maa tax la xad raa min ayaati rabbihil kubra kon nee na loolu boo ci jàngee da nga ci xam dara tuuti ak lu mu néew néew waaye maqaamam mënoo cee xam dara moo tax mu ni ko lam yusaawuka fi ulaaka wa xad haala sanam minka dunahum wa sanaaw innama massalu sifaatuka linnaasi kama massala nujumul maaw anta misbaahu kulli fadlin fama tasduru illa an daw ikal adwaaw ak leer fu mu mën a jóge ak lu mu rëy rëy ak lu mu ngand ngand ci yow la bàyyi ko waaw sëriñ si fi sëriñ si jiiti woon yëpp dañ la doon xàllal rek waaye yow yaay sëriñ bi dëgg-dëgg moo tax mu ne ko fama tasduru illa an daw ikal adwaaw mboolem leer gu mus a am mboolem leer gu mus a ñëw ci sag leer la bàyyi ko woon looloo tax nag sëriñ Touba. jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam liggéeyal ko liggéey boo xam ne kenn mësu koo liggéeyal yonante bi it beral ko loo xam ne mësu koo beral kenn ndax suñ borom bi mu bi mu yëree xol yi dafa dafa gis ni mboolem xol yëpp xolub Serigne Touba moo ci gën a bëgg yonent bi moo ci gën a sopp yonent bi amul benn xol bu jege sëriñ tubaa ci bëgg gi mu bëgg yonent bi looloo tax nag yonent bi ni ko yow yaay sama jawrin moo tax mu def ko muy Abdullahi wa xadimi rasulihi looloo tax nag ma bëgg a indi tuuti rek ci diggante sëriñ bi ak yonente bi ak sëriñ Tuubaa ni mu bëggee woon yonente bi ak ni mu ko liggéeyale ci sunnaam ak ni mu ko liggéeyale ci diine ji ak ni mu ko liggéeyale ci mboolem ponki lislaam yépp moo xam aj màkka la moo xam natt asaka moo xam alxuraan yépp lenn lu ci nekk sëñ bi jël na ko ba nga jàpp ni lii rek moo ko taxoon a jóg loolu danaa ci indi ay firnde bismillah عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسي من صلاة وتسليم اللهم salli wa sallim wa baalik alayhi atiril lahumma xabruhul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa barik alayhi looloo tax sëriñ bi wax ni muhammadun nuuru xalbi astaniru bihi wa rufqati ahlu badrin muddatal umri nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy sama leeru xol leeru xol mooy làmp yi may niital moo tax mu ni astaniru bii fu ma jëm moom laay jël def ko muy sama tors moo tax yonent bi mu jaar aw yoon la ndax koo xam ne yonent bi nga jël def ko muy sab lamp mu xar sab xol dugg ca tarbi ca foo jaar yoon la moo tax fu mu jaar yoon la mu wax mu wax ni Euh, fépp fu ma jëm yonent bi moo may leeral waaye ñi may àndal samay àndandoo mooy ahlu badar waa ahlu badar sëñ Tuubaa waxoon sëñ sëñ Ablaat nettali woon na xis bu gudd ci jàkk ji ci Daaru Xuddoos ni rasulullahi da ko fee feeñoo bi mu ko feeñoo laaj ko loo bëgg mu ne ko bokk ci gaa yi yi nga àndaloon mooy ci waa ahlu badar nee na yonent bi alayhi salaam ni ko loolu day faat na waaye am na maqaama mu fi nekk moo xam ni mënees na la koo jox mu ne ko loolu day baax na lool waaye man li ma la wax rek bëgg naa bokk ci ñii yonent bi ne ko ñii faat nañ yow day amagoo ñeent fukki at ngir nga mën a nekk xut bu samaan jotagu waaye des na waaye mën nañ la ko def sëriñ bi taxaw fam taxaw ni ko sama itti jenn la muy bokk ci ahlu badar kon nit bu fekkee day bëgg dara bëgg koo am faw mu dëgër bopp waaye sooy wut benn yoon amoo yaafuus bàyyi arrière loolu mooy yokkat loolu baaxut ci kuy wut moo tax kuy wut dëgëral ca la nga am bi mu insisté yonent bi ne ko ah moom day bari na ñoo xam ni bëggoon nañ ko waaye biñ demee ba agsi barab sàngam ci ay nattu dañuy arrière deltu ginnaaw moo tax sëñ sëñ sëñ bi ne ko man de li fi yéeg sama ruu mi ngi koy àttan sama fit attan na ko yonent bi ne ko bisimilah moo tax mu ne ko kon la jiitu mooy Touba gi da koy génn da ngay génn Touba te sa nijaay daf la bëgg lool li fi yëg mi ngi fi lool du mën a am moo tax teguñ ca dara nijaayam sëñ bu soobee làqu tubaab yi génn ko kon diggante boobu ci la ci la liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ba yonente bi boole ko ci waa ahlu badar kon euh, nee na waa ahlu badar ñooy samay àndandoo maanaam fu ma jëm ñoom lay àndal kon nag war na ñu xam kan mooy Sëriñ Tuubaa war na it ñu xam maxaamam Sëriñ Tuubaa képp koo xam ni yaa ngi jàngale Serigne Touba wala ngay wax ci Serigne Touba mënoo am benn sañ-sañu wax ci moom te bokkoo ci waa ahlu badar Serigne Touba ka koy corriger Seydina Abou Bakar lay doon wala Seydina Omar wala Seydina ñooñu ñoo mën a corriger Serigne bi ndax ñoom ñooy àndandoom ndax nee nañ ñooñu lay àndal moo tax bu ñu demee ba ren jii ay nit di jub di wax ci sëriñ bi. wala ñu jàpp ni mën nañoo yàq pas-pasu benn taalibe loola ak lor dong la te képp ku ko def ci sa kaw lay këppwaat ndax sëñtuwaa Tuubaa nee na woon du ku ñuy xulool du ku ñuy xeexal ku ñuy liggéeyal la te képp ku ko bañ posen lay doon bu fekkee da koy nëbb dana la lor bu fekkee nëbboo ko moom gaynde lay doon day day soppi ko gaynde fàdd la te ñi ci jaar ñëpp gis nañ la leen dal kon sëñ Tuubaa koo xam ne nee na waa ahlu badar ñooy ay àndandoom kooka sopp ko rek moo war ak liggéeyal ko ak bëgg ko ak di dàkk ay mbiram fas yéene sax ci ay digalam loolu moo mooy mooy ku nar a texe daal bu xuloobu jumlatil lazina aflahu li war a rabbil muslimin nee na képp koo xam ne nar ngaa texe suñ borom def na la nga nga dëgmal si na waaw nee na képp ku nar a texe ndax mooy yonente bi waaw ndax yonente bi moo amoon àndandoo yooyu moo tax moom moo ko waxal boppam kon nag loolu lu mat a bàyyi xel mu waxaat ni muhammadun wasilati wa xusni alayhi alayhi sallim alayhi sallim alli kulli xisn nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy sama taar mooy sama wàccaay lépp lu may def ni nit di jële ay or di ko takk wala mu jël oto bu rafet jàpp ni lii mooy alalam nee na man yonent bi mooy sama alal mooy sama wàccaay mooy sama takkaay xaddi jaaltuhu turaaba nahlihi yaa laytahu lahasani bi fadlihi nee na sama leex bii day sama lex bii bu ma fi bu ma fi yonente bi fekkoon nee na dama koy def aw dàll jox ko ko mu ci mu koy sol damay tëdd bàyyi ko mu jéggi ci jàll kon moom ni mu jàppee yonente bi mooy ni ab sëriñ jàppee ab taalib ci ci misaal mu gàtt booy xool Sëñ Tuubaa buy tagg yonante bi alayhi salaatu wasalaam ab jàngalekat la jàngalekat yi dañuy tudd ak njabootam di tudd ay soxnaam di tudd ay doomam waaye moom du tudd ci sa ci yonante bi lu dul ab sëriñ di tudd ci taalib bi du du ngeen dégg mukk sëriñ Tuubaa tudd benn xare bu dàqe yonante bi alayhi salaatu xalaatu ko ci àdduna la ca la baax lépp a baax waaye la lañ jàpp ni mooy ay teggin loolu rek lay tudd yow ma Hunaynin yow ma Badar bis yooyu rek lay tudd waaye yeneen xare yi nga xam ni dafa nuru ni yonante bi dañ ko caa gañee du ngeen gis mukk Serigne Touba di ko tudd da ko joxoon war ma di ko waggar fonk ko lool buy tudd njabootam gi bi umminaa xadijata bi umminaa hafsata ba ila axiri maanaam bu leen tudd sunu ndey nangam sunu ndey nangam war ma la leen joxoon kon li muy bari bari xam-xam di dégg siira du ngeen gis mukk mu tudd ci sëriñ bi lu dul la ab taalibe di tudd ci sëriñam loolu gis nañ jàngalekat yu bare bari yoo xam ni bind nañ ci yonent bi waaye ku mel ni Sëñ Tuubaa nga xam ne liñ ci bind kenn bind ko te mus ca tudd lu dul la mu war a tudd loolu bokk na ci moo ci saat yi bokk na ci kéemtaan yi moo tax mu ni def naa ko jox naa ko sama lex bi mu cay aw am na foo xam nee na jotoo naa yonent bi sallallahu alayhi wa sama ñaari waajur maanaam lu nar a dal yonent bi yàlla na dal sama ñaari waajur Serigne Touba àgg na foofu kon ñun taalibe yi Serigne yi yi ñuy wax yëpp àggaguñ àggaguñ sëriñ bi fam ak àggoon rasulullahi ba léegi àggaguñ ko moo nee na jumlatu maali wa midaadi wal xalam hadiyatun lil Moustapha Babi Niang nee na mboolem sama alal jëpp ak lépp lu ma am ak samay daa ak samay xalima nee na def naa ko muy hadiyey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lépp yonente bee ko moom juttu juttu lahul ma bi ruuhi wal badan wa walidi wa walidayya fil alam loolu moo gën a nee na jël naa jël naa sama ruu ak samaw yaram ak sama ñaari waajur jox ko jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa na jël naa sama ruu ak samaw yaram ak sama ñaari waajur jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee habawtuhu bi xidmati wa nafsi min saahati ila hulul ramsi nee na jël naa may naa yonente bi sama liggéey ak sama bakkan ak sama bakkan ba bis penc nee na sama lépp jox naa ko yonente bi de ko dara lakka lisaani maxal janaani wala udaani ka suara yi nee na sama samaw làmmiñ ak sama dënn lépp yow yonente bi yaa ko moom zimaamil yow ma jaxaltuhu abada fi yadi ahmada litaaxati samat yow ma jaxaltuhu abad fi yadi ahmada litaaxati samat nee na jël naa sama nos jël naa sa jël naa ak buum takk ci sama bakkan jox yonent bi muy muy ñotti sallallahu alayhi wa sallam laka yaa nabiyu manasili wa mawaatini wa mawaadihi laka bil aliyi mutaawisa yow yonent bi yaa moom samay kër yaa moom samay dëkk yaa moom samay barab yaa moom samay béñ pénc kon Touba Touba li muy rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko moom bu ngeen gisee mu ni Kaaba ga toxoon na fële ñëw fii euh, te rasulullahi ma nga ca woon maa aminil wax yi Seydina Jibril ma nga ca woon loola mooy man maa doon yonent bi maay moom mooy man hablin nabi sanati wa shahri wa habluhu sirri ridan wa jahri yow yow yàlla maa ngi lay ñaan nga jox yonante bi samay at ak samay weer nga jox ko samay secret jox ko sama lépp mooy bis bu ne lu ma ca def ak lu mu rëy rëy def naa ko ëddee yonante at mu ne lu ma ca def lu mu rëy rëy naa ko ëddee yonante bi weer wu ne lu ma ca def lu mu rëy rëy def naa ko ëddee yonante bi muhammadun wasilati wa raahati lahu balaaxati lahu fasaahati nee na yonante bi mooy sama wasila nee na yonante bi mooy sama nooflaay nee na lu ma sonn sonn lu mbir rëy rëy lu jafe-jafe yi bari bari sama xel bu demee ci moom rek damay damay am nooflaay mooy li dal murid yi ci sëñ bi lu adduna metti lu kiris bi metti boo leen tuddalee Serigne Touba rek fàtte nañ lépp ci moom lañ ko royee fii ka zahabi fii ka iyaabi bi laxtira bi lakkantimaa yi nee na su may dem ci yow laa jëm su may ñëw ci yow laa jëm su may dem ci yow laa jëm su may ñëw ci yow laa lépp lu may def moo xam maa ngi ci tumuraanke wala maa ngi ci sama biir kër nee lépp yow suñ borom yaa moo tax mu ni xadal xadil tasamtuloho fi kulli ma sanatin maadaama aqli mahi daynal hadiyaati nee at mu ne fas naa yéenee def ay addiyey tagg ay addiyey yu baree bari yoo xam ne ay tagg lay doon waxoon na ni salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati saay addiyey tagg ngir jagleel ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadiyati yaa rasulullahi haaka bila raddin wa kun liee yow wa kun liee yaa man jaawhul jaaw nee na sama addiya yow yonante bi na ko jël te bul ko delloo si te na nga ma nekkal yow mi nga xam ni yow kese yaa am daraja xus yaa rasulullahi minni abadan hadiyati wali safuun abad nee na sama addiya ju sell jii yow rek yaa ko moom yow rek yaa ko yelloo billaahi lam yaati wa laysa yaati mislum ne abdillahi sil ayaati nee na maa ngi wàcc yàlla ni maa ngi wàcc yàlla ni ku mel ne yonent bi mësta am te du am yàlla sëkkut ku mel ne yonent bi te dootu ko sàkk ba abadan nee na loolu maa ngi koy wàtt wallaahi lam yatti walaysa yaati xalxun ka misli sayidi saadaati nee na maa ngi waat ci yàlla ni maa ngi waat ci yàlla ni mbindeef mu mel ni ngën gi yonent ngën gi bi nee na suñu borom mosu koo indi te du ko indi abadan laa yusxirul qadr misluhu wa lam yusxirhu wa huwa al xalqu wal fardu wal qalam nee na dogalub suñu borom bi mësta feeñal ku mel ni rasulullahi te dootu ko feeñal ba abadan saa allasil amru lahu wal xalqu an laa yakunu kan nabi xalqu yàlla mi nga xam ne lu ko soob am nee na soob na ko ku mel ne yonent bi dootul amati ba abadan nabiyuna ahmadu faaxal anbiya wa ruslu wal amlaaki inda rabbiya nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na kawe na anbiya u yëpp kawe na yonent yëpp kawe na malaayika yëpp kulla man abdaahu aw yubdihi xaaliqu zaman nee na képp ku yàlla sàkk rasulullahi moo la gën képp ku suñ borom sàkk rasulullahi moo la gën ahmaduna al muxtaaru faaxal faaiqin al xodama wal xiyaaru laayiqin nee na yonent bi moo kawe ña kawe woon ñëpp moo xam ña jiitu ak ña mujj innam ni abdillahi faaxal xuluqaa lafsan wa maxnan xalxan wa xuluqaa nee na bi moo kawe ña jiitu woon ñëpp ci zaahir ak ci baatin haasa nabiyullahi maa laa yaalamuhu illa allasi lawhu lahu wa xalamuhu nee na bi làq na loo xam ne ku yàlla mi moom alliwa ja mënoo koo xam ci ay maqaam ak i daraja darajatul muxtaari faaqa cher xaabat anil albaabi faaqatil abar nee na daraja yonente bi sallallahu alayhi wa kenn mënu koo kenn mënta bind ba bind ko kenn mënta jël xalima di way ba way min yumnihi atal kiraamul madadu huwal imaamu wa safiihul ajwal nee na mboolem xéewal yi ngeen di dégg ci nit nit yàlla am ko ak ay may ak ay teraanga nee na ci daraja yonente bi alayhi salaatu wa salaam lañ ko amee attiril lahumma qabruhul karim bi arfin safiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa barik alayhi atiril lahumma qabruhu lkarim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim allahumma salli wa sallim wa barik alayhi atiril lahumma xabrahul karim bi arfin sasiyin min salaatin wa taslim salli wa sallim alayhi kon ay darajam ak maqaamam ak i ngëneelam Sëñ àddina ci lu bari bëggoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba waajoon na sax ngir dem Makka aji ba wutoon na ab délégation bi mu war a àndal ba sax wutoon nañ ab yóbbal lépp waaye diggante bi ci la tukki bi ñëw looloo tax mu ni euh, yaa laytani xat surtuhoo bi jasat yi ka xaatir yi xatta yu ziira awat yi ak a neexoon ma dem ba makkatal mukarrama mën a jàkkaarloog moom lugg ci xabrom ba siyaare ko ni nga xamee ni fu ma toll sama xel mi ngi koy xalaat di bind ay xalima yazuruka minni haysuma kuntu yaa muhi fuaadi wa ruuhi bil busaarati zaata yi nee na fu ma toll sama xol ak sama ruu ak sama yaram yow yonent bi maa ngi lay siyaare di la xalaat boo tax may bind ci yow ak di la tagg taafa fuaadi baytu rabbil alamin wa saara rawdatul habibi kulli hin nee na day sama jëmm ji demu fa waaye sama xol bi du fa jóg mukk waxtu wu ne sama xol bu ma nga fa di wër di def tawaaf comme ni ko njaboot gi defe waaye ku ne xam na ni yàlla fay na ko ndax bëgg gi mu bëggoon a dem makkatal mukarrama tax na ay doomam ak ay xalifaam ak i sëtam at mu ne la ñuy yóbbu makka kenn xamul nu toll suñ siy di maxtaar rek defe naa li ñu wax ni moom la yóbbu Makka téeméeri nit ak juróom-ñett fukk mel num sëñ Sidi Maxtar kon yàlla fay na ko mu wax ni ahlal madinati minni sarmadan lakumu abqa salaamin yutibul xalb wal jasada yéen waa madinatul munawara yéen ñi nga xam ni yéen a dëkkaale ak yonante bi maa ngi jël samay siyaare ak samay nuyoo waxtu wu ne di ko indi ci yéen ngir cofeel gu ma am ci yonante bi ak bëgg gu ma ko bëgg wa huwa allasi iqa jismi an siyaaratihi laakan laakin lisaani lahu kal xalbi sawaaru nee na damaa am gàllankoor ci sama yaram ba mënuma koo siyaare ji damaa am gàllankoor ci sama yaram ba mënuma koo siyaare ji waaye waxtu wu ne sama xol du fa jóg xasabtu zawrahu wala xawla wala quwata illa bil ilaahi musjala nee na waxtu wu ne maa ngi jël sama samay samay xalima ak samay daa ak samay mbind ak sama cofeel di ko jëmee ci yonent bi sëriñ Tuubaa nag bëgg gi mu bëggoon yonent bi liñ ci mën a jàngate ñun murid yi maanaam liñ ci mën a jàngate li ma wax lépp liñ ci mën a jàngate mooy ba léegi ñun ndekete ak guñ fenn ak donte ñi ngi góorgóorlu fañ war a àgg suñ digg ak sëriñ bi ba léegi àgguñ fa ndax ku dem ba nga xam ni attan naa jël ay waajuram jël ak ruuxam jël aw yaramam def ko addi yonent bi alayhi salaatu wasalaam kookoy day képp koo xam ni aju nga ci moom waroo deseete waroo deseete dara suñu Moustapha Saliou day wax ni buñ fab aw des di ko jox sëriñ bi daanaka murid yi léegi ñu ci bari dañuy def li ñu def lépp ba desal jox sëriñ bi murit yu jëkk ya dawuñ am dara fi mu ne mosuñoo génne asaka ndax luñ dajale rek yët dem yët kër sëñ bi ku mel ne sëñ Masamba Diop Samb boo mosaa dem euh, ca péncam ma day mel ni ab marché ñuy sëf gëléem yi ak fas ya di yët sëriñ bi nga xam ni dara dawuñ ko dese léegi nag da ngay def li ngay def lépp tabax say kër takk say soxna bu desee dara nga dem jox sëñ bi moo tax sëñ Moustapha Sall ne woon bu ñu fab aw des di ko jox sëriñ bi yonent bi nag sëriñ tubaa da koo joxoon léppam deseeli ko woon dara moo tax bu fekkee ni bëgg nañ suñ digganteeg sëriñ tubaa gën a ratax nañ gën a góor góorlu ci bëgg gi bëgg sëriñ Touba bëgg gi nag li koy firndeel mooy topp maanaam boo bëggee Serigne Touba da koy topp kenn ku nekk am nga kilifa sa kilifa lam la digal nga def ko lam la tere nga bàyyi ko bu dee jigéen am nga kilifa goo xam ni mooy sa boroom kër bu dee góor am nga sëriñ wala sa waajur mi ngi fi wala sa mag wala sa laneen kenn ku ci nekk boo toppee sa kilifa rek kon maanaam réussir nga ci mission bi ndax laxat kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag dañu ko royloo dañoo war roy ci jikkoom ci mbaax ga ci yërmande ci tabe ci bëgg doomu aadama ci yéene ñëpp jàmm ci def lu baax yoroon ay jikko yu rafet képp ku mës a gis jàpp na ni yaa ko gën euh, lépp loo xam ni ma ngi koy wax wala mu di ko def da koy teg ci ak nite loolu tax na nag ba lim am ci mbindeef yi tey jii wooteem bi àgg na ci milliard àdduna bi booy seet milliards yi jullit ñi ngi fi tey loolu li ko waral mooy seenu melokaan seeni solo ki yaat ndax ab jullit dëgg-dëgg daanaka boo ko xoolee dangay jàpp ni li lañuy wax ni sëñ sëñ Saliou Touré day wax ni saa yoo xoolee nit jàpp ni moo yaa ko gën rek nit kaa la gën. waaw ne saa yoo xoola nit jàpp ni yaa ko gën nit kaa la gën li Sëñ Tuubaa waxoon ni fa kullu man yansuru fawqahul kilaab fal kalbu xayrun minhu doona lertiyaab kon nag dañuy daaneel suñ kàddu foofu di ñaan képp koo xam ne teew nga fii ci barkeb guddi gii yàlla faj say aajo ci barkeb sëriñ Saliou ndax Serigne Saliou moom yàlla defaloon na ko damay damay nopp lu tuuti waaw Serigne suñ borom yàlla da koo beral da koo beral ci biir ndax Serigne tubaab bi muy ñëw ci kaw suuf li ko fi indi woon mooy tarbiya mooy defar nit ñi waxoon na ko sëñ Fallu ak sëñ Maodo Moustapha ndax bi leen sëñ bi yeewee dañoo taxaw kenn ku ci nekk de da leen a yeewi ñu dem ab diir ñëwaat yar ay nit kenn ku ci nekk di sikk sàkka ñëw ba ci buntu néeg sëñ bi di laaj kenn ku ci nekk di laaj ñi defar maanaam lu ciy pexe daal ñun bu ñu defaree nit ki ba nepp nu ñuy def sëriñ bi woo leen ni leen li ma leen sant mooy ngeen wulli der yi man maay duy sëriñ Saliou nag li mu wulli ci ay der ci taarixul basar yi gisaguñ ko ko wulli ndax koo xam ni xel daaree xel ko kom fukk ak juróom la woon daara yi des defe naa fukk ak ñett la woon wala fukk ak ñeent daara ju nekk ñetti téeméeri nit ña nga ca woon nga xam ni maanaam danga naan fukki at yu ne defar na lu mat fukki junniy nit par exemple bu ma lay misaal par fukki at yu ne fukki junni nit te 1934 la sampoon daara ba 2007 wala 2006 bi mu fi bàyyi ko kon moom li mu defar ci ay nit li mu defar ci ay mbindeef li lim liggéeyal Serigne Touba ci côté boobu kenn fekk siwu ko ci loolu ab cëram la yàlla moo ko jox moo tax képp ko bépp seex bu mës a ne ci keppaaru Serigne Touba. bépp seex nag bu mos a ne ci kappaaru keppaaruk sëñ boo demee kër sëriñ Saliou da nga ca fekk ndax da daf ne woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ Tuubaa daa def ci mag ñi donte yelloowuma ko ma barkeeloo ko ku ne xam na ni tawaadu dafa toroxlu waaye loolee euh, kenn fekk ko ca kenn fekk ko ca kon nag ku ku teewee guddi gi fii ci kër Soxna Waalo sànni nga benn sànni boo xam ne jëm nga picc yu bari mooy màggal nga guddi gu yonante bi jëfe nga ndigalul sëriñ Touba jëfe nga ndigalul sëriñ Saliou waaye jëfe nga ndigalul soxna wàllu mu baax mii nga xam ni ku laq ngërëmul sëriñ Saliou la nit ku ñëpp bëgg la nit ku ñëpp sopp la ndax wax naa ko barki démb keroog bi mu làqoo ba bis bii delsi fii ni mel doomi sëriñ Touba rek nga ko mën a misaal ndax man dëj yu bari fekk na ma fi sëñ Saliou fekk na ma fi sëñ Moustapha Basirou fekk na ma fi sëñ Mourtala fekk na ñu bari fekk nañ ma fi waaye ni ko mën a nattablee mooy doomi sëñ Touba moom nag kon mul xaq la mooy dañ koy yéegal sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Ablaat dafa waxoon sëñ Moustapha Basirou ni ko yow dañ laa yéegal ci doomi sëñ Touba yi waaye soxna wàllum yi man nga ni dañ koo yéegal ndax lum jëf lum jëfal sëñ Touba ndax nag moom la Serigne Saliou njëkk a gis yàlla dogal mu doon mu doon ci jamono jooju jamono ju metti ndax booba Serigne Saliou euh, daana yónni ay nit ci Ndakaaru ñuy wuti ab dund ngir daara ji léeg-léeg sax mu yebal nit ba ba ba am am yaakaar kooka jàdd ak lañ ko jox xam naa ñu bari ñoo xam ni sëñ bi yónni na leen ay dund ba tàyyi ñu jàdd ak loola nga xam ni donge yi danañ nekk ci tumuranke ak ay méttit yoo xam ni mara day yi moo tax ku mel ni Cheikh Béthio mii sëñ Fallou Sany bu laa dëkk mu nettali ko nee na su ngeen gisee mu am cër bi mu am ci Serigne Saliou nee na dafa am benn bis boo xam ni daara ji dafa xaw a metti lool nee na Serigne Saliou moo ko nettali nee na ba àgg nañ ci di nax gone yi di taal ay cin ba noppi moom mooy toog ci diggu mbaar mi gone yi wër ko muy waxtaan ak ñoom. nga xam ne taal nañ cin yi te amuñ luñ ci def nee na njurul la sëñ Saliou taal na ay cin te lu mu ci def amu ko waaye di xaar sëñ Tuubaa nee na àgg àggoon na foofu nga xam ni day naxtaan ak gone yi ba bañ far nelaw nee na bis loola dal ko sëñ Béthio ni tël indi ab camion boo xam ne da ca sëf ba mu fees dell ak ceeb ak la mu war a àddal lépp nee na bi mu agsee bi sëñ bi ne ñokkee jub mu wax ko li ne ci wata bi nee na ko sa law de fekkoon nga sama bët bi xonk lool nga weexal ko ni nga weexale sama bët bi yàlla na ko sëñ Tuubaa weexale noonu mu ne kookee keroog ci bis boobee jàpp naa ne lu mu am ca la ko amee ndax kuy liggéeyal yàlla jamono njatt ko nga ñëw fekk ko fa sëñ yi dadaa wax ni euh, jawfal fara wacaal masir yesa jawfal fara lil wara mislal mahariri daan ni jawfal fara xam ngeen ko ñu ne ko mbàkki boo ñu ci dimbalee ñu jël mu ne jawfal fara aw la boo xam ne ku ko jam dootoo soxlaati ndawal ci sa dund képp ku ànd ak yow dootul soxlaati ndawal ci dundam daan ni jawfal faraa nag benn bal rek moo ko mën a jam benn bal mooy addi yoo xam ne fa mu jóge bàyyiwu fa dara fa mu jëm fekku fa dara mooy ku jox ki joxe lenn rek di ko jox koo xam ni amut dara ki yor lenn di ko jox koo xam ni moom yorut dara loola kon day mel ni sëñ Béthio lam am ca la ko amee cër yi nag du fi jóg pas-pas yi ak yitte yi rek moo des waaye mboolem lu nit amoon ci lu baax bu ko nit fàggoo na ko ñooña fàggoo woon dana ko am Serigne Saliou daana ko wax ku kudd gañ tibbaloon sëñ ma ndumbe mi ngi fi seetlaw ku def lam defoon ñu tibbal la ci waaw cër bi moom du fi mos a jóg mukk ci misaal man mii ci ci gàttal Serigne Saliou ñëw na njurul am fa weer am fa am fa am fa semaine sama baay fekk ma fa bi ma fekkee matoog toog nii sëñ bi toog nii sëñ am sa di ma tooñ da di wax ni yéen day seen daara daa neex léegi ndax ay ceeb ngeen di lekk nangam ak nangam sëñ sëñ Saliou ne ko sa daara jooja mooy ji rek daara jooja la muy metti metti moo la muy la li ji li muy neex neex mooy jooja wan na ko ni ko yéen la ngeen fi amoon ñii buñ ko ñii lool lool rek lañ fi am mooy la ngeen fi defoon la fi ñii def waaw ku ne fi nga dabe yoon wi waaw kon lu baax moom du fi mës a jóg abadan jigéen juy sëy boo fag boo ko boo ko defee ne ko soxna jaara jaan defee ak soxna yu baax yii soxna mati fañ jaaroon danga am doom yu barkeel yu baax yañ am waaye nag ku yaafus nga xam ne yow waxtu wu ne da ngay sonal sa borom kër doo sàkk tuyaaba doo sàkk lu baax danga am àddina de waaye day sa sa njaboot day gawma ni da nga ci am barke waaw suñ borom naxul kenn yàlla naxul kenn man man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha lu waay rendi ci sa loxo lay naaj wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa